boo leen bëggee am mbooleem vidéo yi bàyyeekoo fii ci Istikhama TV da ngeen di bés fu ñu bind abonné bu leen fàtte bés fu def cloche bi foo leen mën a ne ci àdduna bi ngir ngeen mën am mbooleem vidéo yi fi bàyyikoo a'uuzu billahi min alsheytaani arrajim bismillahi arrahmani arrahim wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa sallama taslima murit bi ngàlla xeeraw lul maa ngi lay waxati ku tax nga yéemaat sëriñ tuuba ak ñoñam ñaati murit bi ngal la xerewlul maa ngi lay waxati ku tax nga yéemaat sëriñ Tuuba ak ñoñam ñaati du man di tey ci wax leen gaa yi Bamba ya ndax ñoo ñaama ñooy samay roy teef fi tuubaati xam seeni jaar-jaar te koy xam lee di yoon wi ma saf def naa ko aw sas fi Tuuba man ba siirooti yàlla ma def géwélub seex bamba ak ña ko dar may xool ko cay dalu sas tey bay ma kañ kooti way naa fi seex bamba ak doomam ya tey ma mébët ne cas ca seex sa ku baaxoon way ko ngeen xamati la mu boole yu jégal ñun ñëpp yu jiital ci nuyoo boobu nag cheikh mouhamadul muntaqa di ñaan suñu boroom yàggal ko fi lool te dolli ko wéral ba mboolem li nga xam ne yéene na ko liggéeyal maamam ji ak Cheikhul Xadim suñu borom defal ko tawféex mu sottal ko ànd ko ak njabootuk sëriñ Touba gi yëpp waaye ànd ko ak taalibe sëriñ Touba yi yëpp naka noonu itam lañ koy ñaanale sëriñ Abdul Xaadir Njaay mi nga xam ni tey jii mooy xalifa sëñ Daarul Xasan moom itam suñu borom dolli koo dëgëral dolli ko yàggal ba mboolem li magam yu baax yi naaloon way jur ya naaloon ko maam ya naaloon ko moom it mu sottal ko ànd ko ak njabootuk Sëñ Daaru Asan gi yëpp ànd ko ak taalibe yëpp di sant bu baax ci euh, bis bii nga xam ne jamaatu ahibba i soyxal xasan dafa baaxoo saa buñ tolloo fii ci waajtaayu màggal gi ñuy tànn ñenn ci jàmbaar yi nga xam ne ñoo àndoon ak Sëñ Daarul Xasan doon ko jàppale ci liggéey boobu nga xam ne moom la Seex Ahmadul Xadiim defoon ci moom te loolo mooy li sëñ Tuubaa jubul woon ci tarbiya saa buñ toll fii ñu tànn ñenn ci ñoom jagleel leen ay bés fàttali leen njaboot gi ngir ñu mën caa jàngiwaat bu baax a baax waaye man cee fàttaliku mën a teguwaat ci yoon wa loolo dañ ciy sant bu baax a baax ren jii nag niñ ko waxee ñu tànn maam Ibrahima ngoone ak sëriñ Masamba Kan ñuy sant bu baax it sëriñ Mouhamadou Thiam Beng ci waxtaan wu am solo yi nga xam ne jiitu na tënkoon rek ci diggante sëriñ akub taalibe mu mel ne leeral na ci lu baree baree bari waaye eh, dafa mel ne li sëriñ Touba waxoon rek asidqu fi mahabbati cheikhi abad summa imtithaalu amrihi xaysu warat wa mahahu salabul ixtiyaari li xusni zanni bila inkaari sëñ bi da koo tënkoon rek ci ñaant loola sëriñ dugg na ab taalibe dugg na kon li ci des lépp ab sarxaat la ak yaatal waaye li am solo mooy sëriñ bu matub sëriñ digle moo ko war ak tere waaye taalibe matub taalibe itam topp topp ndigal moo ko war ak bàyyi tere loolu rek la ci gàttal kon yàlla na nu suñu borom subhaanahu wa taala def nu doon dëgg-dëgg ay taalibe na Serigne Touba bëgg ab taalibe mel na noona yàlla na ko suñu borom def te jaarle ko ci suñu jàmbar ji mu ñu booleel muy sëriñ Darou Assane Ndiaye. Euh, bu ko defee nag euh, ngir njëkkante ak waxtu yi ñu xamle tuuti rek ci jëmm ji nga xam ni moom lañ jagleel bis bii muy maam Ibrahima Ngoné yaakaar naa dana doon gan lool ci nopp yu bari. dana doon gan ci nopp yu bari ndax nag dafa bokk ca mag ña bokk ci ñi nga xam ni dañoo njëkk a ànd ak sëriñ Daaru Xasan njëkk koo nangul ndax bi mu ganee jamono ñu yar ko jaarale ko fi ñuy jaarale doomi soxna yi te mooy jàng téereb yàlla bi ba xam ko jàng xam-xam ba peeg ci lu baree baree bari bi nga xamee ne sëriñ Touba ñëw na woote loolu yi mu woote woon ci Mbacke Kajoor te mooy feddliwaat ak leeralaat yoon wi nga xam ne rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam moo koy indi te jaaroon caam mu wax ne dafa far fargay mu faxas ko ba mu set wicc woo nit ñi wax nañ ne keroog. bi muy woote daa fekkoon muy jàngale téere bii ñuy wax alfiyatu ibnu malik ba toll ci bayru ñax faxalam qiyaasul masdarul muadda min zi talaasatin karad mu di ko baamtu ay yoon ba ca ëllëg sa la door a woote nag ne nañ ñëw jébbuloo fekk lu jiitu loolu yonent bi moo ko feeñ woon ne ko rabbi asxaabaka bilhim wala turabbihim bi darsi faqat loolu nag bi mu amee sëñ Daaru Asan dafa demoon dafa demoon jaayante ak moom ba am ngërëmam ba mu ko joxee ndigal nag mu delluwaan njaambur ba mu ñëwee nag maam Ibrahima Ngoone mi bokk na ci ñi nga xam ne ñoo njëkk a jaayante ak moom joxe boppam ànd ak moom ba ndigal li nga xam ni moom la Serigne Touba joxoon sañ Daaru Xasan mu sanc dëkk bee ñu wax Daaru Salaam ñu gën koo miin ci Daaru Njaay Njàmbur fa la nekkoon ak moom ba mag ñi wax nañ ni sax maam ibrahim Ibrahima Ngoone mosuñoo xam këram fu sëñ Daaru Asan musaana nekk ci biir kër sëñ Daaru Asan lay nekk Daaru Njaay Njàmbur bañ fa nekkee ci biir kër sëñ Daaru la nekkoon mu jógee fa sanc daarul xadim fa ñuy wax daaru biram boodel da koo yóbbaale ba mu demee foofa itam ca biir kër ga la nekkoon di ko tarbiyewu waaye di liggéey ànd ak moom ba mu fa jógee sañc tubaa Ndiaye itam daf koo yóbbaale ca biir kër ga la nekkoon kon wax nañ ne musuñoo xam këram kër sëñ Darou Assane moo nekkoon këram loolu nag li ma ko waxee woon sànq mooy sëñ tubaa dafa dafa dafa dafa jafal ay ay ay taal yabal leen ci ay gox ngir ñi jafalaat yeneen i taal loolu moo taxoon sëriñ bi woote yoon wi. kon maam Ibrahima Ngoone noonu la nekke woon àndoon ak sëñ Darou Assane waaye doon jàmbaar koo xam ne ak njàmbaaram foo ko natt weesu na ko ci ni ma ko waxoon ci téereb yàlla bi muy alquran waaye ci xam-xam waaye nag ci liggéey ndax euh, ñi ko xam dëgg-dëgg wax nañ ne maam daa boole woon ñaar te mooy xaqiiqa ak sariya ñaar yi nga xam ne benn mënu ca dem bàyyi morom. ñaar yooyu la boole woon ndax wax nañu ci nekkam ak sëñ Darou Assane maanaam xereñe gu mu xere woon ci wàllu liggéey taxoon na sëñ Darou Assane bàyyi woon ko xel ci lu baree baree baree bari ba wax nañu benn bis am na sàq moo xam ne dañ ko doon defar ca lañ xëy yandu ca ba timis di jot bañ sottee dugub ja sàq ma dafa dagg lépp gaawee ko wax nañu bi ko sëñ Darou Assane déggee dafa wax ne xanaa Ibrahima nekku ca ña ko doon liggéey xanaa Ibrahima nekku ca loolu la njëkk a wax ñu woy maam Ibrahima Ngoné mu ñëw ñu tiriwaat lépp mu jiitewaat liggéey ba ñu xëyaat di rabbu ba ba timis jot wax nañu jël sëñ jarasan génn yor ab dokk moo dox tànk ba ñëw ci saq mi jër dokk bi fëgg ko ci ci ci ci ci sàq mi daan ne ab liggéey nii lay mel kon xereñe gu mu xereñe woon ci wàllu liggéey taxoon na sëñ jarasan bàyyi woon ko xel bu baax a baax waaye déggoon ko ay responsabilités yu rëy rëy loolu nag dafa dafa dafa am lu muy wane dafa am lu muy wane looy day wane ni mag ñi yàlla rekk moo leen ñoroon man ànd gi ñu doon ànd naxante wuñu woon waaye jaayante wuñu woon waaye yàlla rek moo leen doon moo leen ñoroon kon su fekkoon ne dañuy xamle maam Ibrahima Ngoné dañuy wax ne doomi njaay aram sàmbu la njaay aram sàmb njaay fatma jaara moo ko jur bu dee ci way juróom wàllu wàllu way juróomu góor bu dee ci wàllu way juróomu jigéen ku ñuy wax soxna fat ñaan jóob moo ko jur mu bokk ak sëriñ ñaan jóob yaxanaa ñu bari xam nañ ko féete féete woon fa lay guy mbind ci sëriñ baara moom moom cheikh ahmadul xadim kon loolu suñ ko doon xamle dana doy sëkk nga xam ne kon rakk la ci sëriñ daaru asan waaye jàppewu koon rakk dafa ko jàppe woon sëriñ moo tax kero bi nga xamee ne suñu borom ñëw na akub dogalam ba ñu jëlee euh, sëñ Darou Assane Touba njaay indi ko fii ci Touba moom fasaasa boo boobu la jóge jóge njare sayar ñëw ñëw sañ ci Touba wax ne damaa gàddaay te gàddaay dellu bokku ci kon teel naa ñëw Touba wax nañ itam biñ ñëwee fii daarul na lañ njëkk a wàcc mook sëñ Abdul Xaari Ndiaye ak maam Sayar Ndiaye ñoo àndoon dañ def nañ fa ab diir boo xam ne Sëñ Abdou Khadir tawat daf ko wax dal ju méttee métti ñu yónnee ci Serigne Touba Njaareem bañ ko waxee daf daf ne leen fo foofa du du du wàccuwaay ba suñ demee nañ jógee foofa dem ca gànnaarug gànnaarug Touba loolu moo leen indi fii loolu moo leen indi fii ñuy wax Daaru Njaay biñ ñëwee itam fi mu njëkkoon a dal mi ngi fii fii Kër Baay Kamal Jeng gi fii Kër Kër Baay Kamal Jeng gi tollol maam Ibra foofu la njëkkoon a dal. bi ñu nataati dëkk bi lañ door a tuxal si kër gi mu ñëw fii kon ñi njëkk a ñëw Touba ci la bokk li fi tax ñu daan wax Darou Ndiaye dëgg-dëgg itam fii la woon ndax lépp léppi Darou Ndiaye fi lañ ko daan defee waaye ni ma koy xoon mu doon ko boole xaqiiqa ak sariya di mu sancee kër gi nii li wane ne sariya la ci doon la doon dund doon ne ko ci suñu dara asan lam fi njëkk a taxawal mooy jàkka. jàkk la fi njëkk a taxawal waaye taxawal fi daara di jàngale alxuraan jàkka ji mi ngi tolloon ak fii tey kër Baay Abdou Karim gi nekk fi la jàkka ji jàll jàkka ji tollaloon ba euh, Baye Ngunda Baye Ngunda Ngaya wax nañu ne am na ko fi daan nodd ku ñuy wax bàyyi Mor Mbeng nee na bu mos na moom Baye Ngunda Baye Ngunda Ngaya ne ko seen jàkka jooju ki fi nodd num mu tudd mu ne ko ku ñuy wax Mor Mbeng de moo fi noddu mu ne ko moom day maam noddam gi yéeme na lool maam ci ci neex ak dëggu ak pëseef ndax nee na su dee nodd day mel ne ay rajo lañ takk te booba ay rajo xewagul nee na sëriñ Sonia bu bu mag moom sëriñ Tuubaa bàyyi ngoon a ngay nee na nee na laaj na ko loolu te loolu day wane kon maam Ibrahima Ngoone la ko sëñ daro Assane defoon ci jëmmam ja mooy jëfandikoo xaqi ak sariya ca loolu la nekkoon mooy taxawal fi jàkka waaye di jàngale alxuraan ba maam lépp lu ñuy taxawal ci diine wala lu ñuy def ci diine rawat na naafilay sunna yi maanaam fii lañ daan fii lañ daan daje di ko fi defee léegi lañ la taqali ko rek kenn ku nekk di ko defee këram wala ñu koy defee fenn waaye mbooleem lañ fi daan def ci julli naafile yi fii Daaru Njaay gépp fi lañ daan daje ko fi def même ab sëy bu ñu ko daan takk fii la ñuy daje defee ko waaye mu doon mu doon mu doon ku ku ku doon mu doon ku ñeme responsabilité itam koo xamee ci ak njabootam maam ni mu ci taxawee woon mosuñoo dégg wala ñu mos a gis koo xam ne taxawee na noonu koo xam ne lépp njaboot gi yaa ko doon def lépp njaboot gi yaa ko doon def su ci nit waree takk soxna yaa yaa yaa koy takkal yaa koy takkal yaa koy defal la ca war même bu jafe-jafe amee ki yor soxna si ñimi wut a wàcc maanaam wàcc dee am maam maamira mooy ñëw xool ba seen ni ñii mënatu joo ànd mu taxale leen loolu nag yombut loolu yombul kon ku boole woon xaqi xel ak sariya waaye mu doon ni ma ko waxee mu doon mu ab liggéeyaa kon wax nañ ne ay toolam mi ngi tàmbali woon fii ba quartier bëgg Bàmba lépp ay toolam la woon nga xam ne maam tokkarum ñambi bu mag la fi yoroon boo xam ni bari waa ca jamono boobu ñu nekkoon Tuubaa ñoo xam ni fi lañ daan wutsee ndimbal lu jëm ci wàllu euh, pulox ndax boobu pulox am na solo lool puloox nag wecc na ndawal boobu am na soxna am na solo lool kilifa yi baree bari fi lañ ko daa wut si ak dugub ba wax nañ sax mboolem lim daan jëlee ci tool boobu li ci ëpp kër soxna Fatia la ko daan yóbbu ndax daa mujjoon sëñ Jara Sane ci ak mujjam da koo boole woon ak soxna Fatia sëñ Yoro Ngoone ci mujjug sëñ Jara Sane sëñ Jara Sane da koo boole woon ak soxna Fatia ba wax nañ bu mu saana taw ba siwét sax maam Yoro dana dana yable kër soxna Fatia nee nañ ma xoolal ndax aw sàkket daanuwu fi wala ab xeer daanuwu fi ngir taxawu goo xam ne nii sëriñ Serigne Ndiassane moo ko boole woon ak moom mu war koo taxawu kon ku ñeme woon liggéey la ci wàllu gum mën a doon waaye tam mu doon ko am ak jaxasoo ak kilifa yi fi nekkoon yépp rawat na Cheikh Mouhamadul Moustapha ba lenn ci njaboot gi sax li waral ñu féete foofu maam relation ak jaxasoo bu mu amoon ak Cheikh Mamadou Moussa moo tax ñu féete foofu wax nañu bis Cheikh Mamadou Moussa woolu na ko jëm njaareem ci ku baax ki ñu ànd ñoom ñaar keroog bi ñu àggee ci kër gu mag gi ba sëñ sëñ Mamadou Moussa wax bëkk néeg bi ne ko ko yëglul nee na bi mu toogee tuuti bëkk néeg bi ñëw woo ko ne ko ñëwal wuyu sëñ bi sëñ Maodo bi muy bi muy jóg fi la bàyyi maam Ibra Ngoone bi mu demee ba gis sëñ bi nuyoo. daf ko laaj ko àndal mu ne ko Ibrahima Ngoone la àndal mu ne ko woo ko mu ñëw bi mu ñëwee nuyoo siyaare ba noppi daal dall dal fa mu toogoon sëñ Modou sëñ bi wax ko lam koy wax ba bi mu génn di dem maa Ibrahima moo ko sant woon yor dàll yi romb sëñ Modou tegal ko dàll yi sëñ Modou romb dàll yi mu jëlaat dàll yi rombaat ko tegal ko ko sëñ Modou rombaat dàll yi ba ca biti mu ne ko Ibrahima jëmm ji ñu jóge day ku la ko gën a xam ku la ko gën a xam rek gën la ko ragal moo ana boroomam ma ko bind sëñ Moussa la ko wax jëmm ji ñu jógee ku la ko gën a xam gën la ko ragal waaye asamaan suñu borom ma ma ko bind kon relation bu mu amoon ak Cheikh Mouhamadul Moustapha tax na itam ñu daan séq yu baree bare bari yoo xam ne ni xëy na euh, waxtu yi moo ñuy xoj ba niñ ko bëggee woon dëgg dëgg dëgg duñ ko mën am waaye bokk na ci lool lenn ci njaboot gi tax ñu féete foofu loolu moo ko waraloon waaye tam mu doon mu doon ku yaatu ak njaboot nag doon na ku yaatu ak njaboot ñoo xam ne sax yaakaar am na xam maanaam bokk sëtoon nañ ci te mosu ñoo xam ne ci maam Ibra lañ bokk. am na ci ñoo xam ne sëtoon nañ ci ni ñoo xam ne ci maam Ibra Ngoone lañ bokk ndax danañ ci lim rek ñi ñi nga xam ne jot nañ leen cee teewlu. buñ koo tàmbalee ci maam Modou Kumbaan nga xam ne moom moo nekkoon ab taawam am na ko ñu wax sëñ Bay Kumbaan waaye maam Ousmane Ndiaye itam ak maam Modou Ndiaye ñu gën ko xam maam Modou Koto mooy waajur Abdou Ndiaye maam Habibou Ndiaye nga xam ni tey yàlla dogal na mooy ab xalifaam yàlla na ko suñu borom doole yàggal te wéral ko maam Sidi Ndiaye moom itam xam nañ ko mais féete fële ko suñu sax mu yëmu ak ku ñuy wax maam Mbay Ndiaye ak ku ñuy wax maam Xasan Ndiaye kooku moom dafa dafa dafa nelaw ma ca armée li ngéyéen yi fa ko denc ak ku ñu wax sëñ Abdul Karim Ndiaye ak Baye Cheikh Daaru Ndiaye waaye dem ci wàllu jigéen ñi am na ku ñu wax maam Assu Ndiaye ñu ñu gënoon koo miin ma Assu Ibra waaye tam ku ñu wax maam Ousseynou njaay Ousseynou Ndiaye mii moo ko Xasan Ndiaye mii may wax ni dafa teel a nelaw ñu denc ko armée armée ñoom ay seex lañu woon ñoo jur Baye Taala sama way jur maam nu Ndiaye mi maam Ramata Ndiaye itam ci jigéen ñi ak maam Asta Ndiaye ak ku ñuy wax maam Aminta Ndiaye ak ku ñuy wax maam Bousso njaay ak ku ñuy wax maam Fati Ndiaye ak maam Loota Ndiaye ak maam Aram Ndiaye kon lii lenn la ci ak njabootam ci wàllu góor ñi ak wàllu jigéen ñi waaye lu yaatoo yaatu la nag loo xam ne nii am na ci yoo xam ne sax ñun xamaguñ ko ndax ni ma ko waxee woon léegi eh, eh, daa doon koo xam ne ca mag ña la bokk ca mag ña la bokk léeg-léeg gëstu dana àgg foo xam ne nii ñoom mag ñi fi ñu tolloon maam liggéey yi leen daan jat daana tax amuñu woon jotug di gëstu yenn yi ñi nga xam ne jamono ji gone yi ni ñu farloo maam lu leen yitteel ñu ñu ñu jug dem gëstu jugoo ba am ci lu lu bare bari mag ñi moom nekkuñu woon foofu waaye li ko waraloon mooy itam dañoo amul woon jot dañoo amul jot ba wax nañ ni at mi nga xam ne ci la wàcc ab liggéey 1962 ci la wàcc ab liggéey kon ci gàttal rek bu fekkee bañ na maa guddal ngir waxtu wi loolu bokk na ci li nga xam ni bëgg nañ ko tënk muy as aslëf ci euh, xamle maam Ibrahima Ngoone waaye ñu xam itam ni ma ko waxee woon daal euh, mboolem njaboot gi yëpp sant nañ bu baax a baax ndax ni ma ko waxoon ci tàmbali yi bari na ñoo xam ne ni maanaam tur wi dana doon gan ci seeni nopp te boroom xam-xam yi dañuy wax ne man arraxa waliyan faka annama ahyaahu maanaam ku taarixal waliyu mel na ni ko ko dundalaat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 seydina almakin wa ala alihi wa sahbihi wa salama taslim mbokki jullit yi mbokki taalibe yi njabootu sëriñ xasan ñoo ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen baalu xaq te di leen baal di ñaan suñu borom tabaraka wa taala mu boole ñu jégal ñoo ngi jiital ci nuyoo bi ak siyaar bi cheikh abdul xaadir njaay suñu borom yàggal ko fi lool te wéral ko moom ak njabootuk sëriñ daaru xasan gépp ca ñu ànd ko mboolem taalibe yi di ko ñaanal bu baax a baax ki nga xam ne moom la nekk ci ab atam muy sëriñ ibrahima ngóone suñ boroom dolli ay leeram dolli ko jéggal ak mboolem ñam fa nekkal ñépp di ko ñaanal ab xalifaam sëriñ xabibu njaay suñ boroom yàggal ko fi ca wéral ko moom ak njabootuk maam ibrahima ngóone gépp di sant yàlla bu baax mi nga xam ne moo ñu taw féexale ba ñu teewaat bis yi nga xam ne dañ koy tase ngir waajale ko màggaluk sëriñ daaru Hassan mu bokk ci ñi nga xam ne dañoo àndoon ak sëriñ daaru Hassan ci liggéey bu mag boobee nga xam ne moom la doon liggéeyal sëriñ Touba mooy ni ko sëriñ Abdourahmane jang waxee mooy sarixa gu leer ak xaqiixa gu dëgër dëgër kon yàlla na ñu yàlla fayal mag ñooñu mu mel ne am na ay wàccaay bis yoo xam ne mi ngi ci suñu kanam ngir daayira bi waajal ko bokk na ci guddik àjjuma goo xam ne dañ koy waajale màggaluk sëriñ Daaru Asan gii ñu jëm lañ ci jublu mooy ngir ñaanal ko mag ña ngir ne koo xam ne dafee bàyyi koo dafee jóge bokk na ci li koy jariñ mooy ak ñaan moo tax njaboot gi wax ne dañuy bëgg dundal loola ci guddik ajjuma ajjuma gii ñu jëm incha allah ci fi ñu ko baaxoo defee muy eh, ci péncum daaru njaay mi kon loolu na ko ñëpp bàyyi xel ci wàllum jàng alquran ak xasida ak bépp askar boo xam ne nit mën na ko bu ñëwee incha allah rabbi ñu fas kii ñu ko jëfee noona kon kenn ku ne mu bàyyi ko xel waxtu wi nga xam ne moom lay tàmbali bu ñu jullee timis ba noppi ba keroog sëriñ bi di ñaan insha allahu rabbi kon ajjuma bii ñu jëm rek la na ko ñëpp daal di bàyyi xel ca waajal ko mu bokk ci bis yi nga xam ne bokk na ci wàccaayu màggalu sëñ Daaru Asan comme nin ko defale fii ci njabootuk sëñ Ibrahima Ngoone muy kenn koo xam ne moom it àndoon ak sëriñ Daaru Asan di sëriñ Masamba Kan moom it ñu war a def a waxtaan wu mel nii ci njabootam mu tombeeg la 14 bii ñu jëm incha allahu rabbi ca Kër Wele foofu lañ koy amale ci waxtu yi mooy buñ julee toksaan ba noppi rek lañuy tàmbali incha allah bokk na ci yooyu mooy seet seetal bi nga xam ne njaboot gi baaxoo nañ koo def suñ jubee màggal gi ngir waajale ko màggal gi ngir mboolem lu war Daaru Njaay mën a set mu tombeeg la di set na ko ñépp bàyyi xel ca fas yéene koo defe nan ko daan defe mboolem fu quartier mën a nekk ci daayira bi ak fu mbooleem njaboot si ndax sa man di nekk euh, bu waxtu wa jotee nañu teel a ñëw defe ko noo xam ne dana kawe njortu lool bu dee ci wàllum la 19 bi def na ci xool wàllum jabet ci ñi nga xam ne dañoo amee tawat jooju wala koo xam ne sax amu ko waaye dana ko wóorlu am na ay docteur yu fay ñëw yoo xam ne kenn du ca fayeku dara kon ku ca ñëw dana la xoolal sa wér-gi-yaram ba xam fan la toll moom mi ngi to mi ngi to mi ngi tombeek la 19 am na maye deret ci bis booba képp koo xam ne man nga ko ca bokk ci kër seen Daaru Asan ca at yi yëpp ñu ko doon def kon nan fexe bare nit ñu def ko noo xam ne moo gën a faw fawqa na ko ñëpp bàyyi xel te ñu waajal ko bu baax a baax ba tey ca le 19 ba am na conférence boo xam ne daairatu minanul baaxil diim mooy setaati sëriñ daaru xasan yi ñoo koy amal euh, ci bis booba ginnaaw bu ñu julee tuksaan ba noppi ka nga xam ne mooy def waxtaan wa di sëriñ mujj njaay asan moom sëriñ Moustapha Ndiaye moom sëriñ mu Ndiaye Assane mooy def waxtaan wa bu dee bisu màggal gi ñoo ngi koy soññee bu baax a baax ci wàccaayu màggalu maanaam ci wàllum alxuraan bu nu xëyee ak xasida ak bépp askar njaboot gi foofu waay man di nekk ak buntu kër bu mu ci mën doon nañu xëyee jàng alxuraan ak xasida ak bépp askar bu nu demee ba nga xam ne toog saan jot na am nañ waxtaan woo xam ne daayira bi dana yëkkati ay kàddu jëmale ko seen mbokki taalibe yi ci soññee suñu digganteeg sëriñ si ak suñu digganteeg li nga xam ne moom lañu ñu sëñ bi digal ñu fas kiin caateeg suñu tànk ca bañ koo wàcc waxtaan woon fa amal nag sëriñ bu Buso Cumbuleen moo koy waxtaane tem ba mi ngi jëm ci xormay Tuubaa kon loolu na ko ñëpp bàyyi xel mu mel ne bis yi ñu wax dafay am loo xam ne moo koy lay taay muy génn kenn ku dul ñun njabootuk sëriñ daaru xasan bismillahi rahmaani rahiim assalaamu aleykum wa rahmatullah noo ngi nuyu mbooleem kilifa yi fi teew di ci gisal saaliwu njaay moom sëriñ usmaan ak sëriñ ibrahima jëmb mi nga xam ne moo kàddu kër gi sëriñ cheikh maam say ak sëriñ cheikh xataw sëriñ ahmadu njaay moom sëriñ abdourahmaan ak mboole seen doom yi ñu àndal ak mboole magi bi yi fi teew yépp di teg suñu nuyoo si suñu Abdou Khadre seenu loxo ak suñu ziyaar surtout Baye Abibou njaay mi nga xam ni tey jii moo fi toog toogaay sëñ Ibrahima Ngóone àndal ak rakkam ci jotaay bi sëñ seex Daaw ak rakkam sëñ Sidi te yàlla dogal jamono tax mënu ko teew ndax at mag ak yaawam bi sutante ñu ñaan suñu boom dolli ko adduyo ak kattan ak mboolem seen jigéen yi nga xam ne ñoom lañ bokkal sëñ Ibrahima Ngóone yépp mboolem ku ci mën a ñëwee ñëw na ku mën ko ñëwit mboolem seen njaboot kenn desul ñëpp a teew ak mboolem njabootu maam Faama Gueye te moom it muy kenn ci sëñ Ibrahima Ngóone ndax ku am néegum baay am nga néegum ndey ci njiital baay siidi baay idi sa mbeng ak mbooleem njaboot gi kenn desul gannaaw ban yëgee bis bii kenn ku nekk da jàppe ni yëf yi kat yëfama taxawaay boobee la fi ñëpp taxaw ngir cofeel gun am ci seen maam ji sëñ Ibrahima Ngóone ak seen waajur wa kon sëñ bi Baye Aba wax na ni bisu tey bii day su mënoon a bañ a yëkkati ay kàddu da koy def ndax buy wax daa xamul lu muy wax ndax mbégte moo xam ni fees na dell ci ab xolam ak xol képp koo xam ni yaa ngi aju ci sëriñ Ibrahima Ngóone muy doom muy sët te sët yooyu mën nañ cee tudd Baye Ngunda Njaay mii ak bay Mbay Sagal ak Alaaji Mbàkke moom it xañ na teewul waaye mbooleem rakkam yi ñëpp teew nañ ak mboole seen rakk ndax dañuy bañ a jum waaye bu ñu tuddee mag ñi ñoo tuddaale mboole ñi nga xam ñooy seeni rakk kenn desut moo xam ku doomu si sëñ Ibrahima Ngóone baa ngay ab jarbaat baa ngay ab sët wala ngay ab sësaat wala ngay ab mbokk moo xam ni ab soppe nga at noo ko mën a def ndax mbégte moo xam ne am na ko ci bis bii waaye di ziar baaxee ci mbokk yoo xam ne dañoo bokk ñun lépp te mën cee gisal sëñ Moustapha Lo Bassirou moomu di sotub sëñ Siré Lo Sannoosi moom sëñ di doomi sëñ Bassirou Lo ak sëñ Mbacke Fall di doomi bàyyi sëñ Fall ngiig di xalifa ngiig Fall di ko ziar baax ak bàyyi sëñ Diop Maxtaar mi nga xam ni moo gisal sa son ay bàyyi xadim bu Touba ànd ak woon bàyyi Moustapha Dia te ku ne xam njaboot gi niñ jaxasoo ak ñoom ak mboolem soppe yi nga xam ni nag teew nañ fi di ay mbokk di ay dëkkandoo bàyyiwun kenn ci kàddu cant gi di sant bu baax nag daayira bi nga xam mooy jamaatu ahibaahi Cheikh Al Hassane ci xalaat yu rafet nga xam ni ay at ci ginnaaw ñu leen ko tàmbali di ko def te loolee lépp nag ñu koy def ci ndigalul kilifa yi nga xam ni ñoo teew jëmma jotaay bi te teewal fi seen mag sëñ Abdou Khadi Ndiaye ak mu sëñ faat yi mi nga xam ne mooy ñu kër gi sëñ Ibrahima jëm mi yor kàddu gi mi ngi nii xam naa dana ñëw sa wàllu woowu kon duñ ci xool ci sori waaye kàddu yi cant daal lañ bëgg a yëkkati ci turu nag njabootu sëñ Ibra Ngoone kenn desut du kenn koo xam ne des na di tàmbali sëñ Abibu ba ka gën a suufee ci njaboot gi kàddu cantam ñu ngi ko yëkkatiwaale mbégte moo xam ne am nañ ko tey jii ba lii bi ñu ko waxee sëñ Ibrahima Ngoone lañ njëkk a xalaat. mooy kon dañoo war a fàttaliku ana ku ñuy fàttaliku mooy sëñ Daaru Asan ndax lépp na sëñ Daaru Asan moo war a lépp kon ñu ne kon naka njaboot yi gasandoo njàngam alxuraan ba ñu jàng ñeent fukki kaamil waajale ko bis bi def ko addiyee sëñ Daaru Asan Njaay ak sëñ Ibrahima Ngóone ak mboolem nekk ñi ngi ko bokkaloon loolee teg na ci loxoy sëñ ji ngir xam nañu lu jëm sëñ Daaru Asan boo ko teyee seen loxo dana gaaw a àgg te dana ci am yaakaar bu baax ndax jege gi ñu jege sëñ Daawuda te lañ sa bëggoon muy at nangu loolee am nañ ci yaakaar baax gannaaw mi tey ci loxo kilifa yi kon loolee sëñ Saliou sëñ Ibrahima njaboot sëñ Ibrahima Ngoneex wax nañu ne loolu day dañ koo def ngir feeñal seen yéene ak seen mbégte ci jotaay bii ndax jotaay bi am na solo lool ndax sëñ Ibrahima Ngone sëñ Abdou Rahmane wax na ko léegi doomu bàyyi sëñ Dawson Njaay la seen bàyyi ñoo bokk bàyyi waaye ku ne xam na ni loolu lépp da koy jaayoon jënd ko ak taalibe ba xamuñu benn yoon si diggante ñetti dëkk yi fu sëñ Iba Ngoné am kër du daaw biam mbëre du daaw njaay njàmb du tuubaa njaay fenn fu mas a am kër xamuñu ko ba li ñu wax ci mag ñi kër sëñ Iba Ngoné ñi ngi ko xam gannaaw bi sëñ daw sëñ ñibbisee tuubaa booba dañ doo xam kër sëñ Iba Ngoné te ganaaw bi mu ñibbisee tuubaa yi sa déwén sa lañ jàpp ni te la ñëw ñëw Touba te lam wax mooy def ne moom day fasu ci yéene jëma ci fenn ñibbisi na ndax ki xamoon kenn la muy Sëñ Doosa Njaay ma nga tuubaa kon nag defakut fenn lenn kon ñibbisi na tuubaa wax nañu tey jii léegi nii benn doomu ndeyam bu ko doon ñaan ak ngan mu ne ko gàddaay day dellu dellu ginnaaw du see bokk te man damaa gàddaay dégg nga sëñ Abdou wax léegi nii mu ne sëñ bi Ngóone gannaaw bi mu ñëwee te bi mu njëkk ñëw mooy mi naw bi mu ñëwee fii mi ngi daan fee tolloog Touba Kama Dieng jëm kër Bira fal waaye li ko indi fii mooy natt bi waaye mag ñi wax nañu ne même biir kër gi nit bu ñu mës a àndale nit bi Touba lay jëm moom day wax na na jege nii waaye nii mos fa jëm bokk ndax day wax ni bëggu sax ab néeg ñu sampee sampe ko si biir kër gi yóbbu ko mu jëm gànnaaw mag ñi wax nañ loolu mos fee am néeg bu ñu mës a sampee gànnaaw lay jëmaat jege jeet sangam ba soppeem ba sëñ Daaru ndax cofeel li mu amoon ci moom ba daa doyu ko lu neew mu defet nga am ne tey suñu may na ko mu dëkkaale at moom ndax ci penku baabu suñu dasan bi fenk ko denc moom nag dafa yàgg ndax bi mu nelawee at tey jii juróom benn fukki at at benn ndax 1962 loolu yaakaar naa ni yàggaay boobu tax na ba ñu baax a bàyyi ko waaye jotaay bii ñuy def loolu dafay mel ni wanewaat liggéeyu sëñ Daaru Asan Njaay ndax sëñ Ibu Ngoone lenn nam génn sëñ Daaru lenn nam génn si Daaru gannaaw bi ñu mbokkee ba noppi liggéey lépp sëñ Daaru Asan Njaay la ko def kon nag bisu tey bii bisu sëñ Daaru sa Njaay la bu ñuy wanewaat kenn ci njaboot sëñ Daaru Asan Njaay yi kon sëñ bu wax na ni kon mbégte mi daal buñ doon wax fii ñu toog ba ba ñuy julli fajar du jeex kon na lu du jeex luñ ci am moo mën a doy sëkk kon sëriñ si sëñ Abibu nee na cant gi daal amut lenn luñ mën a wax ma mën koo misaal ndax baat boo bëgg a yëkkati ngir cant gi wane sa sa sa mbëkke xeeb nga baat boobu kon nag li ñuy wax daal mooy sant nañu la fa des nag la see xel yi mën na koo teqati ndax loo la dëxëñ ci ay wax xel danga moo moo ko mën a làqati waaye wax moom lu mu lu mu laxas moom xel la ko mën a làqati kon na wax ji laxas nañ ko ci baatu cant boo xam ne mbooleem njaboot siñ Ibra Ngoone sant nañ ko njaboot siñ Daaru Salaam gépp beral ci ak cant jamaatu ahi bàyyi Cheikh Assane ci suñ maam ndaam mi jiite fédération bi ak bàyyi góor waaye siñ xarit imam mi nga xam ne moo jiite saison bu Touba te liggéey bi xam ngeen ne li ci ëpp day saison bu Touba ñoo koy amal ñoo koy doxal suñ xarit imam kon at bureau bi mu àndal ñoom it cant yi ñuy wàcc ñoom kàddu gi mën ko tënk mën lu ci des ci mën a waaye liñ ma waxoon jot na gudd na te mën na sëkk ñoo ngi taxal foofu di kàddu wasalaam rahim la hawla wala quwwata illa billahi al ali al asim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashraf al mursalin sayidina muhammadin al amin al makin wa ala alihi wa sahabatihi sawir ridwani wa tamkin assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh bokki jullit yi bokki taalib yi ak mboolem ku nuy dégg ñoo ngi leen di nuyu fu ngeen man di ne ci turu sëriñ Abdul Qadir ak sëñ Moussa Fatima yi jëwriñam ak mboolem seeni rakk ak njabootu kër gi ñu ngi jiital ci nuyoo boobu sëriñ Habibullahi Njaay mi nga xam ni tey moom la sun borom teg ci kanam njabootu sëñ Ibrahima Ngoone gépp ak mboolem ay rakkam nag yum seqal sëñ Ibrahim ñuy góor ñuy jigéen ak jarbaat yi ak euh, bokk yépp rek bàyyiwuñ kenn ak seeni njaboot ak seeni dëkkandoo ak seeni soppe kon sëriñ Habib njabootuk sëñ Daaru Xasan ci njiital seen Abdou Khadir ñu ngi am mbégte mu màgg a màgg ci jotaay bii ak bis bii ak kàddu yi fi jib ak seen jotaay bii rawatina nag li nga xam ni liggéey nga liggéeyal ngeen ko sëñ Darou mu mel ni defal ngeen ko lim gën a bëgg te koy defal nit defal ko lam gën a bëgg day mel ni desoo dara ñeent fukki kaamil yooyu ngeen ko jàngal macha allah kenn ku ne dégg na sëriñ Doro Xasan nu mu fonke alxuraan taqoog alxuraan di ko jàng saa su ne guddeeg bëccëg waxtu wu ne ni ko cheikh Mouhamadul Basir radiyallahu leer la ci téere téeréem nanul baqil qadim kon kooka bu bisam ñëwee ñu jagleel ca bis seen wayjur sëñ Ibrahima Ngóone doonoon kenn ci jëwriñam gannaaw ba mu doonee rakk ci moom di mbokk waaye wëlbatiku jaayante ak moom ci yoonu Cheikhuna Amadou Khadim bii ba bokk ci jëwriñam ni ko waxtaankat bi leerale léegi kon bu ngeen ñëwee wàcceel sëñ Daaru Xasan ñeent fukki kaamil kon yéen mel na ni cër bi yàlloo ngeen. boo leen bëggee am mboolem vidéo yi bàyyeekoo fii ci Istikhama TV da ngeen di bés fu bind abonné bu leen fàtte bés fu ñu def cloche bi foo leen mën ne ci àdduna bi ngir ngeen mën a am mboolem vidéo yi fi bàyyeekoo.